tollu woon ci di wax naa bi arafa arafatin nekk na ci arafa nuzoolu naa sunu wàcc taasihan ci bisub juróom-ñeenteel maanaam buñ ne tey la juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski bi nga xam ne bés boobu yaa ngi xëye woon mi nan ngay fexe nag léegi bu julloo fi tisbaaro foofu ci arafa bu ñëwee nag foofu ci arafa ilimaan day xutba ñaari xutba bu noppee nag jiite mbooloo mi tisbaar ak takkusaan ñu boole leen te wàññi leen boole gi mooy buñ jullee tisbaar fi saasa dañ cey teg takkusaan fa saasay saasa loolu mooy boole gi wàññi gi nag mooy tisbaar dañ ko julli ñaari rakk dong takkusaan ba tey ñu julli ko ñaari rakk dong su ko defee nag gannaaw bi noppee ci xutba yi ak julli ak ñaari julli yooyu nag taxaw nga ñu taxaw njëkk jant bi so foofa ci arafa warugar la woo xam ne ku ko bàyyi da nga am rek alamaan waaye du tee aj gi moom baax waxante silan na nga sangu xurbat sawaali ci jayeb tisbaar waxduran te nga teewe alxutba tey ni ñaari xutba ya wajjama xam na te nga boole waq suran te nga wàññi duxuray ka sa tisbaar ak takkusaan su mos xaddu topp na nga yéeg aljabala doj wa raakiban bii mu ngay aji war xalaa wudoo in ànd akum jàpp tumakun topp na nga nekk mu waa vivandi aji taqoo xala duxaa ci ñaan muhallilan tey aji wax laa ilaha illallah mubtahilan tey aji toroxlu musalliyan tey aji julli ala nabi ci yonante ba mustaqbilan tey aji jublu xibla waaw nee na gannaaw bu ñu jullee tisbaar ak takkusaan ba boole dañu daal dem taxaw fa ñuy taxaw fa arafa su ko defee nag dañ koy tuddee taxaw waaye bu fekkee am nga daaba nga war ca daaba ja muy gën nga taxawal say tànk su fekkee ne itam amoo daawa nga taxawal say tànk moo gën toog toog gi moom bu fekkee ne du ngànt su ko defee itam nga sax nag ci di ñaan di toroxlu jëm ci sa boroom di bari laa ilaha illallah di bari julli ci yonante bi te fekk lépp yaa ngi jublu xibla taqifu da nga taxaw xonay fetin as ndiir ba adu xoroo bi ci gannaaw soxu jant gannaaw bu jant bi sooyee dañuy taxaw as ndiir ndax taxawaay soosee mooy farata ndax taxawaay bi jiitu njëkk jant bi so waru la woo xam ne soo ko bàyyee alamaan rek moo la ci war waaye du tax mu yàq dara ci ak gi waaye taxawaay bii nga xam ne gannaaw bi jant bi soxee moom la ñuy taxaw lu mu ñëw ñëw fajar di fenk loolu mooy farata ji nga xam ne fi jant bi soxee bu fajar bi fenk bu fekkee jotoo fa taxaw arafa kon aj raw na la ci at mooma bu déwén nag nga ñëw fay si ko wan fir na nga foñ watan sorifa te ngay wëlbatiku li musdalifa tin jëm ci fa maanaam bu ñu taxawee arafa tuuti gannaaw bu jant ba soxee tiis kon jot na waaye bu ñu ko jullee foofu dañu daal di wëñërdiku jëm si musdalifa moo tax mën a awal batigul ñëw musdalifa nakkib na nga jàdd filma sa may ni ci yaari doj ya alxala ya di ay xalam dafa am diggante yaari doj yoo xam ne dañoo bëgg nga aw ca boo bàyyi ko xarafa jëm musdalifa kon su fekkee buuxante bi méttiwul lool lool nga aw ci diggante yaari doj yooyu moom lañu taamu waqsur na nga wàññi bihaa ca musdalifa wajjimax te nga boole isha gee li nga xam jëm ci timis maanaam Musdalifa nag nga wàcc fa dana ko wax léegi warugar la bu fekkee mënu faa fanaan tam na nga sipp say bagage boo waree bagage wàcc door a jàll waaye soo ko weesootu wàccoo fa rek da am alamaan kon foofu ci Musdalifa fa la ñu jullee timis ak gee te boole leen boole gi mooy buñ jullee timis dañ ciy sësale gee fa saasay saasa te gee ga dañ koy wàññi ñaari rakk lañ ko julli timis nag moom des moo tax mu naa wax xot na nga sippi say bagaas wa bit te nga fanaan bihaa ca Musdalifa wa ax yi te nga dundal laylataka sa guddi maanaam sippi say bagaas wàcc fanaan foofa fanaan gi moo gën boo fanaanee nag kon nga dundal sa guddi ci loo mën ci lépp yàlla gërëm ci julleeg ñaan ak tudd yàlla yépp rek wa sal yi te nga julli sa julli suba wa xëlis te nga miir miir miir ñu ko waxee mooy lëm lëm nga jaxasoog leer ci jamonoy suba waxal liste nga muur muurul rixlataka sag laxas waaw nee na fanaanee Musdalifa ba julli suba te ba setagul bu baax ngay daal di jóg fabu dem taxaw fu ñuy wax almashharul xaraam moom wax naa xiif na nga taxaw wàllu xute nga ñaan bil mashhari ci almashharul xaraam li isfaari ba ca set ga. gannaaw bi nga jullee suba da ngay dem fu ñuy wax almashharul xaraam nga taxaw fa di ñaan ba nga xam ne léegi set na wecc. ba set na wecc wa asrixante nga gaaw fii batni waadi naari ci xuru waadi naar maanaam boo taxawee almasharul xaraam ba jant bi jegee fenk da nga daal di bàyyi ko foofu si munan nag xam ne fi nga yaa ngi ci bisu fukkeel bi léegi ko batnu waadi naar damay bëgg ngay gaaw weesu ko door a doxaat ndànk wasir doxal kama takkoonu na nga nekke woon lil xaqabati ba xaqaba te nga sànni la day fa moom te xijaarin ci ay doj sabxat yu di juróom ñaar tusaaxu yooyu def na leen màngi min asfalin tukkee ci suuf min musdalifatu ci musdalifa kal fooli lu ni ab sëpp waaw nee moo xam na ngaa war moo xam na ngay dox sànq dawal di ñëw rek wut siminan jawali xaqaba xaqaba day fa ñuy sànni ay xeer nga xam ne juróom-ñaari xeer ya nga fay sànni dañoo bëggoon nga fare ko mustalifa ba nga nekkee mustalifa fa lañ bëgg nga fare fa juróom-ñaari xeer yooyu bu fekkee fare woon nga bu bokkoon soo agsee da ngay daal di sànni juróom-ñaari xeer yi foofee ci xàq ba boo sànnee juróom-ñaari xeer yooyu nag xamal ne loolu moom yowu ko bu ndaw yowu ko ndaw moom lépp lu la aayoon ngir armal gi léegi mën nga ko sañ nga ko ba mu des nag li nga xamee ne jote góor ak jigéen ak rëbb bi mooy rey awra bu wóotu rey ñett ko ba tey des na ko si ci yooyu jamono boo àggee nag ba def tawaaful ifaada nag waaw nag nga jigéen ak rëbb bu fekkee nekkoo ci xurum yi ak laalat ko lañ nga xam ne sigatuñ ko loolu mooy tudd yeewu ko bu mag ndax yaari yeewu ko bu mag ak bu ndaw li tax mu ne nag kël fool toll ak sëb kël fool yi daa bëgg wax ne xeer ya ngay sànni bëgguñu mu rëbb yëpp bëgguñu mu tuuti bépp dama bëgg rek mu digg doomu wan xar te nga loj hadiyu in aw xaftahu ndéem taxawaloon nga ko bi xarafata ci xarafa wax liq te nga watu ndegam ñëw nga léegi minan sànni nga jëm rek kon boo yoree hadiyu mu na nga ko loj bu dee lu ñu rendi nga rendi ko su ko defee nag nga daal di watu watu bu dee góor mën naa watu mën naa ceeb te watu baa gën bu dee jigéen nag moom jàmp rek lay def wasir te nga dox lil bayti jëm ci kaaba ga fatif te nga wër wasalli te nga julli bis na gaaka naati kem woole melo waaw léegi da ngay daal di bàyyi ko mënoon dellu def wër bi ñuy wax tawaaful ifaada tawaaful boobu na defee wër bu njëkk ba da nga defoon nga tawaaful xudóom mu la wu ñoo ko bokkale juróomi ko bokkale julli gi ñaari rakka itam ca maqaamu ibrahim bu xatee foo ko jullee bu baax loolu lépp ñoo ko bokkule war ja na nga dellu nag fa salli te nga jullee ji ak zuhra tisbaar fii mu ci mu wa bit te nga fanaan irmi sànnil laa tufit bu rawale isra zawali xadihi ci gannaaw tisbaar yi ëllëgëm ja salaasa jamaratin ñetti jamra bi sabixi xasayaat ñi juróom juróom-ñaari xeer rek li kulli jamaratin ñeen bépp jamra waqif te nga taxaw li daxawaati ngir ñaan ya tawilan diir bu yàgg isral óola yey ni ci gannaaw yaari jamre yu njëkk yi daa wax ne bisu fukkeel bi def tawaaful ifaada te fekk doxoon nga Safaa ak Marwa kon da ngay daal da dox Safaa Marwa kon boo defee ifaada da ngay dem dox Safaa ak Marwa door yooyu ko su ko defee nag bis boobu ci nga daal war a ñëw bis siwaat mu nan fanaan si fi ndax bu googu nga fanaan ko fa ak guddi ga ci topp mu yaari guddi yooyu moom mënuñoo ñàkk nga fanaan ko minan bu fekkee defoo ko faaw nga am alamaan soo fanaanee bët seet nag ci jamono tisbaar dangay for ñetti juróom-ñaar ndax da daa am ñetti bërëbu sànnikaay yoo xam ne lu ci nekk jamra lay tudd waaye dañ koy ràññeele ne lii mooy sànnikaay bu njëkk bi mooy jamra bu njëkk lii mooy jamra bu ñaareel mooy sànnikaay ñaareel ak jamra yi xàq bi ngir mujjee mooy ñetteel fenn fu nekk nga sànni fa juróom xeer xeeroo sànni ñu wax allah akbar su ko defee jamra bu njëkk bi mooy sànnikaay bu njëkk bi ak bu ñaareel ba ndax dañ koy tegale da koy jiital ba njëkk teg te ca topp ba mujj bu njëkk bee bu ci nekk boo sànnee bu noppi dama bëgg nga taxaw fa ñaan ñaan bu yàgg lool bu mujj bi nag moom mooy xàq dana ko wax léegi moo tax mu ne axiran na nga mujjee xàq ba tan xàq moom nga mujjee ci yooyu boo dee sànni moom nag boo ko sànnee doo fa taxaw di ñaan wa kabbiran na nga kàbbar kula ramin ci bépp sànni maanaam saa yoo sànni wa xeer dangay wax allahu akbar boole ca waxal defal kazaaka naka noonee saalisan nahri ci aj ñetteeli bisub tabaski baa nga ne aj ñetteeli bisub loj ba wasitta nga dolli raabixan ab ñeenteel in shiita ndeem soob na la xam nga nee nga bis bii di bisu fukkeel boo defee ifaada ba noppi da ngay dem fanaani minam nga wax ne boo xëyee bis ba ca topp mun laa ñàkk sànni yetti jamra yooyu mu ne bis ba ca toppaat nga xam ne mooy ñetteelu bisu fukkeel bi a def yetti jamra yooyu xam ne nag mooy bisub ñeenteel ci boo tàmbalee di wàññi ci bisub tabaski bi mooy sànni bu fekkee da nga ko xaar baax na bu fekkee mënoo koo xaar nag bu la neexee boo sànnee bisum ñetteel bi rek te mooy sa ñaareelu sànni su la neexee daal di gaaw fanaan si màkka bañ a xaar bis ba ca topp mu misaal ko rek bu fekkoon ni tey jii di àllarba nuy jànge moo doon bisu fukkeel ci weeru tabaski boo defee ifaada xam nga dangay fanaani kon tey jii mënam suba di alxames doo ko mën a ñàkk sànni ajjuma muy ñaareel ba ñetteel lay doon sax boo tàmbali wàññee ci àllarba ji mu wax muy fukkiil waaye sab ña sab sànni moom mooy bisab ñaareel bi sab sànni moom mënta ñàkk waaw muy ajuma gaaw nag gaaw nag boo wàññi boo tàmbali wàññi ci àllarba gaaw mooy nekkum ñeenteel moom mooy wax naa bu la neexee nga xaar sànni ko bu la neexee itam nga bañ koo xaar su fekkee mu doon xaar gaaw nag kon boo sànni ajuma da daal di gaaw génn mi nag wala la fee jant bi soxee bu la jant bi soxee rek faaw nga war a xaar ba sànni gaaw loolu la alxuraan di wax naa fa man tahajjala fii yawmayni falaa ithma alayhi falaa ithma ko defee wattam ma mat na ko maanaam yi ba àggal rek kon jëmi aj gi moom mat na li des mooy nag nga dellu fa sa dal fu la soob ba ñibbi rek des ci nga daal dem nag def tawaaful wadaa maanaam wër kaaba gi ngir tàggu ko door a dem wër boobu nga xam ne moom la ñuy tàggoo nag bu dee ci yoonu maali moom lu la su fekkee jigéen ji daa amee li wax baax gis deret bu mënta wër kaaba jërëm di ko xaar mën naa dal di ñibbi ndax moom lu ñu la bu dee ci yoonu maalik hmm, su ko defee nag wa manaxa tere na al ihraamu armal saydal barri rëbbu jéeri jéeri mooy suuf si suñ borom dafa wax ci alquran ne yaa ayyuhal lazina amanu laa taqtulu sayda wa antum xurum maanaam su ngeen armalee bu leen rey aw rëbbu rëbbu woowu nag nee nañu rëbbu suuf si moo tax ñu wax ndax gannaaw ba nee na uxilla lakum saydul baxri wa taxaamuhu mataaxan lakum wa li sayaarati wa xurrima aleykum saydul barri maa dumtum xuruma wala leeral na ko kon boo xasee armal aj wala xumra ba kera nga yeewi doo sañ rey aw xam ne yàlla da koo sàkk tam dëkk ci suuf si bu dee géej nag moom bu la neexee nëpp du aay soo ko defee te fekkul ñu aay la ko nag la ne fii qatlihi nekk na ak reyam al u pay ga maanaam saa yu reyee aw rab wi la aaye kon faaw nga fay alamaan ba alamaan bi nag dañuy seet bu fekkee ne am na lu mu tolloo ci julli kër yi muy xar ak bëy am na gëléem ne alamaan la nga rendi loola waaye nag alamaan bi dañ lay tànnloo rek bu la soobee itam rab nga rey nga fay xaymaam ci ñam maanaam lu tolloo ci ñam bu la neexee itam nga téye saw ñam dañ nat ñam woo nu ci am mudd mudd bi na nga waral ko bis moom des nag ba tax yi ak xëtiyee ci Makka na ko moytu bu baax a baax ndax moom yomb gañ yomb a gaañ dafa tax ñu diisal ko saa yoo xam ne rey nga ci benn petax rek ab gàtt lañ koy fayee waaye nag am na yoo xam ne moom boo leen reyee itam diis lu ca teg dara loo tax mun a laakal fëri wax ñu lu mel ni ki janax wa xaqrabin ak jiit maxal xidaa ànd ak liccin liccin kalbin akub xaj xaqoorin bu di gëddiwaakoon wa xayatin ak jaan maxal xaraari ànd ak baaxaañ is te jooru ba danañu jàng am nañu jàng ba tey is ya jooru wax na janax moom danga ko sañ rey ndax daa bari yàq jiit ak jaan sañ loonu rey ba tey liccin ak xaj bu mat nekk boobu te nee nañu sax bu xaj boobu jubluwoon ci xajub kese maanaam bépp ndeg ment booy gaañu rek buy lor sañ nga baaxaañ ba tey noonu sañes na ko rey yooyu mooy li nga xam ne moom sañes na leen rey te doo ci am benn alamaan ba tey nag ñu dellu leeral ne bañ ne alamaan bi dañ lay tànnaloo ci nga seet lu mu tolloo ci juru kër loo xam ne loolee nga lu mu tolloo ci juru kër waaye bu fekkee la nga rey amul lenn lu mu ci juru kër mbaa lu mu xaw a yemoon su boobaa kon yaar rek ñu noo mën a tànnaloo mooy joxe gi aw ñam wala koor gi yooyu yaar rek moo ciy mën a am mhm. loolu nga seetluwaale ko ci ba tey nga ne daay woor bis yu toll noonu su fekkee am na benn mbubb boo xam ne ci natt bi itam du tee nga wooral ko bis bu mat loolu itam nga bañ koo fàtte wa mën a xatira na moom armal almuhliku lépp luy ajoor bal xubboo ci ab cër walaw bi nas cin doon te ci ràbb la aw xaqat la wala fas nga xaata mu niki ab jaaro xàkkal ñett li nañ ko nee na boo xasee armale aaye nga sol dara loo xam ne mën naa wër ab cër moo xam ne ko ràbb ba mën ko wër niki baxana wala ay kawas wala ñu faste ko ba mën a ab jaaro sax doo ko sañu takk bu xasee armal doo sañu kaalawo doo sañu sol baxana moom daal amul benn cër boo xam ne ko sañoo muure lañ ko daa muure ba dara ngay bàyyi bu dee góor boppam mu doon kese kanamam di kanamu kese bu dee jigéen tam bopp bi tamit ko muur ndax awra la waaye kanam gi moom du ko sañ a muur ay loxo bi tam du ci sa a def ay gaa dana ko wax léegi a tax mu boole ci wax satra ak suturaal li la ci ñaay kanam nga awra si wala bopp ba dinaa ci dara loo xam ne yoo xam ne def na ko des na ko compter saatira mi aju suturaal ana boo xasee armal bu dee ba dañ koy aaye mor kanamam mbaa boppam ci dara loo xam ne daayis na ko ko muure mbaa sax daayis na ko muure mën ko baaxoo muure mel na mbaxal wala kaala ak leneen loo xam ne moom moo ko ci def rek muure ko ko waaye aada woon ko ci mën doon ba tere ñu ci sab tàngaay mbaa war a fay walakin waaye innama yam naaw naka def na tere al unsa jigéen man ne innama yam naaw naka dana tere moom arbal al sa xof fasin sol ay gaa dafaa armal di waaye dafa war a bàyyi kanamam ay tengam bañ caa sol ay gaa bañ koo laxaar ci weneen morso ba dara boobu itam bu alamaan ilaali sutura di waxoon ngir sutura bokkul si sos jàppeef na ko maanaam jigéen ji bu muuree kanamam muur boo xam ne tënk wu ci ab tënk dagaraloo ko leneen da ko muur la ngir góor ñi wute seel te waruñu koo xool xëy na mu bëgg a yokk suturaam rek moo tax mu bàyyi na muur woon mu weeru ci kanam nga waaye yeewu ko ca tënkewu ko ca dagaralu ko daal su boobaa loola du ay ba mën a xattale na moom armal ak ti bu gëtt gëtt mooy lañ ko lañ bu dee ci yoonu maal dañ ko def ñaari xaaj daf ko bu góor ak bu jigéen bu jigéen bi nag lañu aaye képp ko armal bu góor bu jigéen dañ koy aaye lakk ba bu jigéen lakk ba bu jigéen nag mooy bu nga xam ne boo ko laalee mu takk bu baax ba noppi xeeñ bu baax mu ne misk wala xambar bu góor bi nag mooy bi nga xam ne boo ko bu baax te itam du xeeñ bu baax mel ni warda wala jas bi ne na yooyu bu jigéen bi nag moom moo araam nga xam ne ko jëfandikoo rek daaleem alamaan war a moom boor na ci woon ndax des na mooy bu góor moom dañ koo sibre waaye du am alamaan woo ndox nag akum diw boo xasee armale ne aaya diw sa yaram ci dara lu ko nëttaxal moo xam am na xet bu neex moo xam amul xet bu neex waaye nag boo amee leer ni ko say tànk di xar wala say loxo di xar muy sedd bi daañu la may nga def ci lu mën a karité nga xam ne amul xet bu neex wa darala xablin ak war ay teeñ wa ilqaa wasaxin ak dindi ab tilim tilim jëfrin ak la woowee shaharin abat kawar dana soo xasee arma lañ lay aaye loo ay teeñ doo ko sañ doo sañ a dindi ab taq-taq boo xam ne nii deful sobe bu fekkee ne sobe la moom da nga koo dindi ngir da nga koo julliwaale bu fekkee ne daa tilim kese yem ci moom da ko cay bàyyi ndax mbaa dindi ay kawar wastadi dana jotoo li fi'li ba'd ma ngir def lenn li nga xam ne zukkira tuddeef na ko minal muxiiti tàmbaloo ci muxiiti li xunaa ci fii wa in xodira ak doonte gàntaleef ah, la tàmbalee ba mën a xal muxiita bul xodira ci mu wax ba fii mu daanee la nee dañ koy aaya bu not boo ko defee war a jotoo doonte ngànt tax nga def ko bu tee jotoo ci war la su ko defee nag bu amee ngànt ma bu ci am bakkaar ci def ga bu fekkee nag am ci ngànt te ba muy def loolee ñu ko aaye woon kon day boole am ca bakkaar ba noot nag def alamaan bi boole ci kon nag yooyu nga xam ne moom lañ aaye ku armal su fekkee ne moom def na ko moo xam ci kaw ngànt la moo xam ci coobareem la alamaan bi ni lay demee yett lu ko ci neex def benn ñu rendi ab gàtt su ko neexee itam aw nag wala def baax na benn googu wala mu leel juróom benn miskin miskin mu ne ñaari mudd ñaari mudd nag du a sori ab kilo ci tolloolub ñenn ñi wala boog mu woor ñetti fan ko mën tere na moom armal an nisa laal jigéen maanaam ko armal bu dee du sañ a joteeg ka jigéen bu doon jigéen ba tey du sañ a joteeg ka góor kooku nag moom aajo woon naa moytu bu baax a baax ndax jote boobu bu amee ci la dalee ci bañ armale ba ci subat bi su fukkeel ba moom saa yu fi amee daal yàq aj ga ba su fukkeel boobu itam bu fekkee jote ñoo sànni jamono àq ba jote ñoo def tawaaful ifaada nga xam defuñu kenn ci yooyu yaar ba tey jote bi bu amee yàq bu xasee def kenn ci yooyu yaar rek ba boobu bu ci fukkeel bi jàll na doonte defuñu kenn ci yooyu yaar waaye bu ci fukkeel boobu jàll na su boobaa bu jotee te itam aj gi du yàqu aj gi rek moo cee war moom lay wax naa wa afsada yàq na aj ga aljimaahu booloo ga maanaam booloo gi bu amee ci noonu ma ko ràññeelu léegi su boobaa dana yàq aj ga yu baqaa def na desal al imtinaahu tere ga ilal ifaadati ba ifaada ka say ji ni ki rëbb suma baaqi ma topp aji des nga xam ne xadd mu ni xa téléphone na ko yaxillu dana dagane bil jamarati ci jamare ja al ula ji aji jëkk fasmaan na nga dégg daa wax ne boo defee tawaaful ifaada ngay door yeeweeku yeeweeku gu mag nga xam ne dara lu ñu aay woon rek ci armal aayatul ñu ko ba ci joteeg booru jigéen sax ak ba ci rëbb muy rey aw rab ba warut a rey yàq ko mu siboon sax yooyu jamono kenn sibootu ko ndax dañ la ne woon te mënoo wax nii sax fi mu toll bu fekkee ne ñëw nga ba sànni jamono jëkk ji mooy jamonatul xaqaba bi su fukkeel bi boo xëyee ba sànni jamono jooju rek lépp lu ñu aayoon léegi la ko ba mu des jigéen maanaam jote góor ak jigéen ak rëbb ak sibut lat ko lañ waaw su ko defee nag kon boo defee ifaada yett yooyu desoon mu daal koy sañ su ko defee mooy doon yeeweeku bu mag bi sànni jamono ju jëkk ji muy fekk ba muy yeeweeku bu ndaw tawaaful ifaada nag muy yeeweeku bu mag bu fekkee defoon nga dox safa ak marwa wajaaza dagan na al istidlaalu kerloo bil murtafi ci lépp luy aju yëkkatiku maanaam boo armalee daañu la may lépp am ker te sax ci benn béréb nga dem toog fa kerloo ko ni bu dee garab bu néeg bu dee ab miir lu mën doon mën ngaa toog fa garab ga kerloo ko waaye loo xam ne yaa koy wéroo di dox di ànd ak moom nag di ki xeeti parasol yooyu moom doo ko sañ moo tax mu ne laa fil maxaamili du jaajee ni ci jagaajal ya wa suqdu fin am na ñu wax ne day gën a rëy jagaajal daa mel ni am na ñu wax ne itam day doon jagaajal bu ndaw waaye moom daal daa mel ni moom itam xeetu jagaajal la faa yi na nga wattu jagaajal buñ mosaa war gëléem dafa am lu ñuy tàntoo ci kaw muy set naa bi loolu moo tudd jagaajal waaw mu ne nag doo kerloo ci jagaajal loolu ne boo xësee armal moo xam jagaajal bu ndaw la moo xam mag la kon lu am kerte sax ci benn béréb moom nga sañ fekk nga kerloo ko waaye loo xam ne moom saxul ci benn béréb boo ko sañ a kerloo wa sunnatul xumrati sunna fafxal xaa na nga ko def kama xaj ji niki aj maanaam xumra sunnalu soo xam ne fonk nañ ko lool dañoo bëgg sax bu fekkee ne ci yoonu Maalik moom def na ifraat bi leen gënal muy aju kese boo noppee nga teg ci xumra loolu lañ gën a taamu hmm. moo tax na nga ko def ni ngay defee aj maanaam ñoo bokk ay ponk aj da ko gën a gudd rek ndax ñoo bokkle armal ñoo bokkle wër kaaba ñoo bokkle dox safa ak marwa bu ahrimun na nga ko armale ci tanxiim ci tanxiim nadd kan cig sopp maanaam xumra moom foo ko armale ci xilli ja rek wala boo nekkee biir màkka faaw nga génn ba ci xilli ja moom fa bokk te kurum ji nga armale fa waaye sopp nañ nga defe fu ñu tanxiim nag waaw bu fekkee na ngaa bàyyi ko feneen ci gox yi di ñëw nag moom fekk daa armale aji rek waaw ba tey foofa fu ngay armale xumra ñoo ko bokkle noonu mu tekki nag waxlit ah, wa qasiran te nga jemp isra sa'yika ci gannaaw sa dox saxaal marwa taxil la kon nga yeewiku min xaa ci xumra gi daa bëgg wax ni xumra moom ñetti ponk yooyu boo ko defee muy armal ak wër kaaba ak dox saxaal marwa da ngay watu rek mu daal di jeex bu dee góor day watu moo gën bu jempoo itam bu baax moo tax mu wax tudd watu tudd jemp bu dee jigéen na moom jemp rek soo ko defee daal ngay noppi ci xumra gi wa kassiran na nga baril ak tawaafa wër kaaba maa dumte li feeg sax nga fii màkkate ci màkka mais li feeg yaa ngi nekk màkka na ngay baril di wër kaaba ndax ni nga yow boo xasee ñibbi ak du xamee nga fi rek boo xasee ñibbi doo amati kaaba goo wër kon na nga baril wër kaaba mhm. mooy maa dumte li feeg sax nga fii màkkate ci màkka war xate nga sàmm alxurmata xurma ja li jaanibil bayti ñeel wàllu kaaba gi wa sitta nga dolli fil xidmati ci liggéeyal yàlla li fekk yaa ngi foofu itam nee na na ngay sàmm orama yi bërëb bu tedd boobee ndax kat ni nga xamee ne boo fa demee boo fa defee jaamu yàlla dañ koo ful boo dee boo fa defee bàkkaar itam noonu lañ koo fule kon nga sàmm orma ji foo toll di sax ci lu baax di ko baril foo toll wala simte nga taxoo as saf fa sàppi sa maanaam na nga farlu ci di julli si ca julli mbooloo ga ci kaaba ga fa in xasamtum dem dogu nga nag xalal xuróoji ci génn ñibbi def kon na nga wër kaaba dama xalimta na nga xamee woon maanaam boo toogee màkk ba nga xamee ne léegi ñibbi rek moo ci kon na nga dem wër ga wërub tàggoo wër boobu na nga daan wëree njëkk rek na nga wenn la nga ñaar fukk fa nga ko daan julli yëpp loolu bokk na mu sopp rek nga jëlee ci Bachir Mbaxal li xabril Moustapha jëm ci xabri ko ñu tànn bi adabin ànd ak tey jéem moom niyatin ay yéene ajab kon def na ma wuyu la bam ñeela bépp càkkuteef nee na na nga daal di dem siyaare ne koo xam ne aj nga te da nga maa ñàkkee teeg yéen wax ne ku ma siyaare gannaaw bi ma génne adduna itam na mën a siyaare ñu ma ca ba ma dund kon nga dem siyaare ji ko ànd ak teggin ànd ak yéene ju sell su ko defee rek lépp loo bëgg danga ko am solo yàlla salli mu ngi ñëw alayhi ci yonante bi sama sidd topp li siddiq yi ñëw Abu Bakr li siddiq sama ila xomara topp jëm ci xomara ñu te yàlla na nga am ak tawfiq dëppale yàlla yàlla na nga am tawfiq daal daa doon way la daa wax ne boo demee da ngay fekk foofa lañ denc Abu Bakr as-Siddiq ak Umar ibn Xattaab radiyallahu anhuma kenn ku ci nekk nga siyaare ko nuyu ko wa alam na nga xam bi am na jël maqaama ci naka bi la taxawaay mustajaabu def na wuyu fii ci moom ak duxaa ñaan kon falaa tamal la bul waqat min tilaabin ci jàpputeef am na ñu def ci wàllu nag mustahabu def na sopp mooy doxalam bi am na jël maqaama mustahabu ci itam ñu ko fala tamal la mën talab baax na day wax ne xamal ne bërëb boobu nga nekk nag mu bërëb yonente baat saxaabaam wate booyee bërëbu nangu ñaan la kon nag loo ñaan rek xeeb ko ñaan la bu baax a baax wasal na nga ñaan shafaaxatan am ramu waxat man akub mut xasanan gu aji rafet nee kon na nga ñaan li ëpp solo mooy bu ëllëg yonente la te yàlla may la mujj rafet loolu na ko ñaan bu baax te ñaanale ko bokk jullit yi waxa jil te nga gaawu ak albatu dellu boo xësee siyaare ba sa aju ba noppi rek nga daal di gaaw génn Madina ndax dañu dem boo fa toogee ba yàgg fa daal di koy yëpp nga xam nga béréb boo fa toogee ba xas fa yàgg loolu moo tax dañuy bañ rek nga yàgg fa daal di koy yëpp def fa loo def bu yàqule te loolu ëpp naa def wadd xool na nga tàbbi sa kër joxan ci waxtu wan war war sartu nga àndaale hadiyatu sururi addiye mbégte beneen aqaari bi jëm ca jegeñaale ya waman ak nga xam ne ya dóoru dana wërndeelu di ko ci yow sopp nañu boo ñibbee sa kër nga àgg fa waxtu bëccëg ni ki yor yor te bañ faa danga bañ faa àgg ci waxtu guddi ndax dañuy bañ fekk sa waa kër bu ñu fekkut ñu waaj fekk yëruñu la woon ñu mën a waaj soog ñëw ñu bañ nga gis loo xam ne itam day ñu a ca ñaaw de laa wóotu di def lu ñaaw di daal ko gaaw a ñaaw njort yu demee noonu daal mu ne itam bëgg nañ foo fee imaat nga àndaale fa sëri ca loo xam ne danga koy jox say mbokk ak ñi ak mboolem ñu lay siyaare si nga jox leen ko ngir yàlla sëri ca yooyu nag mel na ne ndoxum sam-sam ba ak tàngal ba bi nga xam ne moo fa ñoree moom mu ci am am solo la teew ñu xëy na lépp bu fa dugg rek